عن الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراضي برأ عن الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراضي له شكوري على حياتي عبدا قديما فاز بالآيات أشكره سكر الذين شربوا من عذبه وللجنان قربوا حصت حياة لا تراني غيري معجزة بانت لأذن غيري يجود للجواد بالجي salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu seetaan foo leen mën a nekk ci àdduna ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen baalu àq di leen baalu ak li leen nuyoo ci pàkk bu tedd pàkk bu am wàccuwaay waaye pàkk bu am taarix ci yoonu murit muy Mbàkke Bari jolo di bërëb bi nga xam ne nii Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba xaalim Rasoul foofu la déparé woon ci atum 1895 di la 10 août waral bisub tey bii dem nag ci tukkeem bu am solo bi euh, bis boobu nag saa su ñëwatee nag euh, mbokki taalibe yi murit yi di ko taxawu euh, rawatina nag ki nga xam ne nii tey jii moo nekk ci bopp dëkk bi muy Serigne Cheikh Jorel mbakke ñu màggal gi nag ren ak lim dajeel tax na ñu ko doon màggale ak ren dina wute xam naa Serigne bi dina ci dëkk lool tax na nag ginnaaw bi ko nuyoo ziar ko fas yéene ànd ak moom ci ay waxtaan yu am solo ci dëkk bi bis bi ak taarixu li nga xam ne nii moo di bis bu tedd bi kon waqad maha anni ya daa'iya tabib barra'ani min kulli aybin wa marad wa qaada lissihata fi kulli garad baritu min uyubi nafsi biltijaa ila alladi abwaabuhu lan turtajaa huwa alkarimu alakramu almukarrimu wal yamin la yarimu alkaramu sëriñ bi ginnaaw nuyoo yi ak ziar yi euh, taarixu bisub tey bi lan nga ñu ci mën a leeral mbokki taalibe yi ñuy seetaan fu ñu nekk ci àdduna. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen jaajëfal itam ci teew gi nga xam ne teew si ngeen ko ci bis bi nga xam ne dañ ciy fàttaliku. Euh, cib Seex Xaadim radiyallaahu taala anhu ñu di ci sant yàlla bu baax nag li nga ko waxee lu ëpp ñaar fukki at ñu di ko ànd ak waa réew mi yëpp waa bokki Jolof yëpp ak bokki taalibe yëpp ak bokki murid yëpp di taxawu bis bii muy fukki fan ci août nga xam ne moo dëpp woon fukki fan ak juróom-ñett ci safar Seexul Xaadim radiyallaahu taala anhu xëyee woon fi ba dem ci géej gi ba ñibbisi ba dem njaare ba dem gànnaar ba ñu yóbbu ko Thiéyeen ba mu ñëw njaareem ba am fa lu toll ci fukki at ak nangam woote xëy benn bis mu xëy woote def ay teraanga ay bernde daal di xamal ne bis bii kat bu ñëwatee képp ko xam ne sama mbég sa mbégte lan nanga ma ci yàlla ndax mooy bis bi nga xam ne ca la xëy woon Mbàkke Bari suubu ci liggéey bi lu mu am ci yàlla yónni ci bis boobu laa ko amee ci noonu Seex Sëriñ Tuubaa santaane ko mag ñi di ko taxawu kenn képp ku ci nekk di ko defee ci barabam saa bu dikkee lu mu mën ñu def ko ba mag ñi tuddi sëriñ bi moo ne kon loolu day nuru biddaa kon nañ ko tuddee nañ ko tuddee màggal xam ne kon baatu màggal sëriñ bi moo ko jëkk euh, wax ci làmmiñam ba noppi itam wëlbatiku jëkk a woote màggal ba tax na kon màggal googu ak baat boobu nga xam ne moom la waxoon ci dëkk bi ak ci barab bi loolu mooy ndey màggal yépp boo gisee sax euh, sëñ Moussa Ka radiyallahu taala dana koy yaxal ca xasidaam wolofal yaa ne ma wax la nag bis bi yaay woo miiraasu ba dese woo dara ni koy faraasu mooy bis ba Bàmba xëy mbàkki baari tàbb ci géej gi xidmati muxtaar yi loolu nag bi ko bokki jullit yëpp xamee ak bokki taalibe yi ñu àndandoo ci ndimbalu sëñ Tuubaa di màggal ki fan ak juróom-ñett ci fu ne ci réew mi ba yàlla dogal Cheikh Mamadou Fadil radiyallahu taala anhu bi mu toogee toogaay jataayu sëñ Tuubaa mu xam le ne kat gannaaw sëriñ bi da koo digle woon taalibe yi kenn ku di ko defee fa mu nekk léegi nag sëriñ bi ñu gis na Tuubaa damaa bëgg kon taalibe yëpp daje Touba ñu di ko defee si fii fi moom kon Cheikh Mamadou Fadil moo ko jëkk woote ci Touba mu yaatoo nii ñu di ko dundal nag di ko màggal ba ni nga xamante ne ni la dekkale barab bi andi fi suñu wayjur bi njëkkee nag ba année 99 jàpp 2000 ci la bokki taalibe yi nag bokki jolof yëpp nag ànd ak murid yëpp nag ñu jàpp nag xalaat bis ko xamante ne daañu ko màggal ñu demee wax ko Cheikh Saliou radiyallahu taala anhu mu xam le ne dëkk boobee di moom bisam mooy bisu mag bisu Touba daal ne kon na ngeen seet bi mu dajaloon ci juddu yàlla yàlla Isa muy euh, weeru tubaab ñu ne ko loolu de 10 la mu ne kon 10 de bokk na ci bis moo gën a wér sax ndax bis du toxu ñu di ko màggal nag ñaar fukki at ak benn ci ren at mu jot nag ñu fonk ko lool bokk yëpp di ci def luñ mën ak luñ mënul ba ma saan ñëw da fekk àll bi yëpp toog ñaar fukki kuréel juróom-ñett wala ñaar fukki kuréel ak ñeent kenn ku nekk dal ab dalam dëkk bi yëngutu lool waaye ren nag lii mu dajal muy mbas mi nga xam ne dañuy ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla daal di jëlee te na mu gën a gaawee loolu moo sabab nag ñu defoon déclaration xam Euh, dañuy sot def yi ren mooy kuréel yi nga xam ne dañ daan ñëw di tax seeni dal muy mbooloo yu dul jeex nañu ko dakkal bu ko bis ba nag moom ñu bañ ko bàyyi saa ñëwee nag ñu daj fa jàng alxuraan jàng xasida saafonte bopp ya fa daje saa bu ñu jullee tisbaar rek ñu mën a yeewu mbooloo yëpp ñu tasaaroo kon loolu daal mooy taarixu màggal bi looloo ko sabab muy bis bi Sëñ Tuubaa xëyewoon dem ci liggéey bu mag boobee euh, sëriñ bi wax nga ko léegi euh, kon mën nañ ne màggalu Mbàkke yi mooy ndeyu mbooleem màggal yi ndax mooy euh, màggalu Touba 18 safar waaye sëriñ Touba Cheikhul Khadim tànnoon dëkk bi di Mbàkke Baari ba tax mu déparé fi liggéeyi liggéeyam bi nga xam ne tey ji moo waral lépp lan nga nu mën a wax ci diggante Serigne tubaa ak baar yi ak lan nga nu mën a wax ci wàccuwaayu dëkk bu tedd bi nga xam ne nii moom la Serigne bi tàmm woon. waaw diggante sëriñ bi ak Mbàkke yi maamam ma xaram mi nga xamante ne mooy wajuru maam Xabibulaay maam Xabibulaay di wajuru maam Moor Anta Sali maam Mor Anta Sali di wayjuru sëriñ bi wala bëti ko waat itam maam Maharam di wayjuru Ahmadou Soxna Bousso Ahmadou Soxna Bousso jox soxna di wayjuru soxna Aswalu soxna Aswalu Mbàkke di wayjuru soxna Jaara Bousso kon maam Maharam moomu moo sancoon dëkk bi wax nañu ne dëkk na fi lu toll juróom benn fukki at ba muy dem nag mu bàyyi fi maam yi sëriñ bi muy Euh, Ahmadou Soxna Bousso ñi euh, nga xam ne mooy wajur Soxna Sawaalo muy wajur Soxna Jaara bi ko fi bàyyee bu nekk fi nag ba ba lu soob yàlla ba mu génnee àdduna fi lañu borom jamono yi nga xam ne sëriñ baa ngi waaj liggéey bi nag bi mu defee xalwatoom bu mag boobu nga xam ne siiw na lool ci daal Daaru Xudoos euh, ci la jote nag ndigalu soobu ci liggéey bi mu amoon nag ñaari gàllankoor yoo xamante ne ba ci des mu ba ci jëkk mooy suñu borom ci boppam aaral na ko Touba ba nga xamante ne euh, dara du ko fa fekk loo xam ne luy niru tiis la ndax tukki bi sax du tiis ci sëriñ bi euh, bi nga xamante ne loolu am na itam fekkoon naa nitu yàlla bu baax ku ñuy wax as kamara mosoon naa gis siriñ bi xamal ko ne ko yow dafa mel ne am na liggéey boo xam ne danga ko suubu muy liggéey boo xamante ne képp bépp nitu yàlla bu ma jaar suñu borom mën na ko ko waaye bu ko xoolee day xam ne du ko attan mu teg ko ci suuf te liggéey boobu dafa mel ne yow da nga ko da ko liggéey waaye nag da ngay dajeeg say noonu waaye boo ci jógee ne da nga ci ndam loo xam ne ku yàlla ko ci loolu nag moo sabab as camara na ne nag man nag li ma ci gis mooy da ngay ci sa suuf yoo xamante ne say maam ñoo ko moom boo ko waajee liggéey bu da nga am moo indi seen Mbàkke Bari bi nga xam ne ñëw na itam kon sababu baatin bi moom suñu borom namoon na ci asal mu daje ñoom te xam ne la muy am ak la muy bëgg lépp ci loolu la koy amee mu ñëw nag fii ci ndigalul borom sanc ko ci ñaari fan ci kori wax nañ ne bi mu xëyee Touba gannaaw bu mu julee korite ba noppi dugaatu ci kër gi dafa war rek jëm si fii wax nañ ne surat euh, fatil kitaab la tàmbalee bàqara ba ci inna malikin muqtadir yow ci ci xamar ba mu ci àggee ci la agsi ci barab bi daal di koy sanc daal di jàkkaarloo tund bi nga xam ne ci la maamam maaram dëkkoon moom mu sanc bi daal di koy tuddee Daaru Xudoos fekk na turu Mbàkke Baari bi mi dellu amaat kër gu ñu sancaat fii ci nday càmmooy tuddee woon ko Touba ñu daan ko Touba topp sel waaye foofu moom jëm moom si tëdd ji rek moo fa daan dem dafa yandu ak am ñam fay dajal waaye fii moo doonoon kër gi nga xam ne moo doonoon kër gu mu waaj fi liggéey bi nag juróomi weer yu manqué tuuti la fi am ñu ko sax moomu dafa liggul nettalee waaye ci biir juróomi weer yooyu itam fekk ne dég-dég yi yaatu na ca ba mu nekkee Mbàkke Kajoor di yaatu ci ba mu nekkee Mbàkke di gën yaatu bi mu nee Darou Salaam bi ñëwee Touba nag adduna bépp fekk ko nag tubaab yi tàmbali nag di tere sax ku dëkk ci Touba ci loolu nag la waajee foofee nag ñëw sanc si barab bi muy Mbàkke Bari mu nekk juróomi weer yu manqué tuuti xam naa yàgg ñàkk yàgg yu mu fi ñàkk yàgg moo tax sax turu Mbàkke Bari wéy waaye sëriñ bi moom daaw tënku ci aada bu mos a dem rek da koy bu dee bu dee tur Muhammad lay doon bu dee dëkk itam da koy dàkkantal ci tur yàlla yi moo tax bi mu ñëwee nii mu sanc dëkk tuddi ko Daaru Xuddoos fekk na ci këram nga ci Daaru Xuddoos la xëye woon ñëw sanc si fii loolu daal mooy taarixu dëkk bi ni nga ko waxee léegi diir bi fi sëriñ bi def yàggul ba keroog muy jot ndigal ci suñu borom dem daje ji ak tubaab yi ngir liggéey am ndam diggante boobu tey bu ñu doon wax njeexit yi nga xam ne nii am na fii ci dëkk bi euh, muy ay bërëbu ziar ay bërëbu wàccu euh, bërëbu wàccuwaay yan bërëb nga ñuy euh, tegtal ci mbokk yi nga xam ne ni xëy na ñu ngi dégg Mbàkke Bari te mësuñu cee mësuñu fee ñëw te bëgg xam yan bërëb yu gën a am wàccuwaay la fi sëriñ bi bàyyi. waaw wàccuwaay bi moom li ci rek mooy mooy mooy mooy dëkk bi ak barab bi ak këram bi mu dëkkee woon ak néegam bi mu dëkkee woon ak jàkk ji mu doon jaamu yàlla Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu euh, diir bi mu nekk fii di euh, jóge Touba sëñ Mbàkke maam sëñ Mbàkke bu soo ko bàyyi woon xamal ko ne ko ku ñëw tey jàng tey tey tey te yor lu muy jox yor jox na la ko jox lu ci dëkk bu ma kenn fekk foofee loolu koo xamante ne day jàng la muy tëb sëriñ bi ne ñëw sañc dëkk bi ci anam boobu euh, barab bi nga xamante ne moom nga laaj bu siyaar eh, dara ëpp ci solo suuf soo xam ne sëñ Tuubaa da koo taamu ñëw waaje fa liggéey bu am solo bi dama am ci dama koy manda dama koy mandargaal ci baytul muqaddas yonent bi sallallahu alayhi bi nga xamante ne suñu borom rañaane na ko ci guddi ga yóbbu ko baytul muqaddas mu fekk fa yonent yi jiitu woon yëpp mu jiiti leen ñaari rakk Euh, jibril alayhi salaatu wasalaam xamal ko ne ko sa borom daf laa woo mu daal di fay jóge euh, rañaan dem ci boromam ak ya xew ci diggante bi yëpp mu jox ko fa julli juróom muy sëriñ bi nga xamante ne moom la indil julli bi kon mën naa ne wàccaay woowu nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon dem bayti muqaddas kon mën nañu euh, mbàkki baar gi mën naa taxa taxawaay boobu ndax fi la sëriñ bi waaje soobu yoonu boromam bàgg ci boromam ba am ci lam ci bëgg lépp kon daal mën nañ ne li nga xamante ne eh, baytu muqaddas am na ko wàcc wàcc ci lislaam ci yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne fa la waaje rañaane fa fekk fa yonent bi jiite leen noonu itam sëñ Tuubaa def ci barab bii ndax barab bii sëñ Tuubaa bi mu fi ñëwee mboolem mboolem nit yàlla yi ko jiitu woon yëpp fekk nañ ànd ak seen kilifa nag mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba am ba dem kon nag suuf soo xam ne nit yàlla yëpp wàcc nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam penkoonte fi sëriñ Tuubaa yaqa satan laa manaam wëlbatiku wàcc itam waa ahlu badrin itam waaje ànd ak moom gunge fi ci liggéey ba mu dem ba dikk kon daal si suuf daal doon suuf barke soo xamante ne daal yëg nañ ne daal képp koo xamante ne yàlla toofeexal na la sa jëmm ñëw fi suñu borom mën naa faj say aajo te la ci ëpp itam loolu lañ ci gis te Cheikh Mamadou Fadel mi ko yeesaloon itam yabal fi suñu wayjur itam dafa daan wax ne ku amul paas sax jar na dox dem fa kon nag ku fi ñëw tey rek war ngaa sant yàlla bu baax nga xam ne xam naa laaj bi ni mujjee mooy comme ni nga ko waxee Mbacke Bary nekk dëkk bu am solo ci taarixu yoonu Mouride waaye gis nañ ne Mbacke Bary xëy na bëri na loo xam ne nii fi jamono toll xëy na amu fi wala manqué na fi loolu itam euh, boo ñu fi doon leeral wala boo doon lancé message ci ñu gën a fonkaat dëkk bi gën koo jox wàccuwaayam yan kàddu nga ci sànni. xam naa loolu li ci sànni rek mooy rafet nañ ci nag njort ndax dama jàpp ne. dafa doon barab boo xam ne saa bu séddoo rek ñëpp fàtte seen cër man noonu laa ko jàppee te suñu wayjur sëñ Cheikh Thioro radiyallahu taala yal na yàlla yokku leeram daana mu wax ne Cheikh ma ne ko Mbàkke mu ne ma baar yi bis lay nekk ndax Cheikh moom Fadil bu fi yabalee daf ko ne noonu yow yow bu ko wootee at mi nga xamante ne ci lañ ko jëkk a wootee benn at mu fekk ko fi mu ñëw ñëw fi ca at moomee la la la génn àdduna kon daal mën nañoo am yaakaar ci xëy na dafa nar gën a jiitu barab yu bari rek moo tax mu mujjee waaye nag da am lu am solo lu am solo loo xam ne ni ñu koy fàttali bokki taalibe yëpp rek mooy daal daanaka wax ay yoon yoon ma ne man daal xaw na maa jaaxal Europe fu ne foo dem fekk fa kër sëñ Touba goo xamante ne sëñ Touba tànk mosuwaa jam ci saa yi ci luñ xam ay taalibe yi daje rek dafa kër Sëñ Tuubaa goo xamante ne bu mucc ayib la ñu daje fa rawatina nag kër gi nga xam ne daf koo dëkkee woon moo njabootum sell woogee waaje fi dem ba dikk wax ne lu ma am ci yàlla yonte bi ci laa ko amee kon daal damaa jàpp ne daal bépp taalibe boo xam ne bépp murit boo xam ne suñu borom euh, dénk na la xéewal jàpp naa ne daal ñëw liggéey ci mbàkki baar yii daal dana doon sa yokkute boo xamante ne doo ko nattam kon nag euh, ñu bañ jàpp ne Cheikh Jooreel Mbàkke moo fa nekk moom jëwriñ rek ñu fi nekk ànd ak bokki taalib yi ñu di fi liggéey sëñ Tuubaa waaye dama bëgg daal taalib yi yëpp xam ne daal barab bi barabu sëñ Tuubaa la lu waaye def deful ko Cheikh Jooreel deful kenn sëñ Tuubaa la ko defal kon nag maa ngi lancé appel ci góor taalib yi yëpp rafet nañ ci nag njort ndax moom mu defaat li rubi ko yeesaloon ñëw na fi ñaari yoon gannaaw boo xamante ne nekk na fi waajuram Cheikh Khadim Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Lamine ak soxna Fadja ak soxna Aminta Kanni ak mag mag ñu bari daal euh, rafet jort ci ne euh, jëmm yu sell yu mel noonu daal fépp buñ teg seen i tànk rawatina Cheikhul Khadim jàpp nañu ne daal murid yëpp ñoo ko bokk na murid yëpp daal jàpp ne liggéey bi seenub liggéey kon nag ñu ngi ci ñu ngi ci woo ñëpp. Cheikh Mouhamadou Fadil ñëw na ci Cheikh Mouhamadou Lamine bi mu doonee Sëriñ Tuubaa ñëw fi ay yoon saa bu ñu ko masaan defee Cheikh Sidi Muxtaar yabal ay ndaw yabal ay doomam ñëw teew si. sëñ Muntaxa itam am na yéene lool yaakaar naa ne bu dul woon mbas mi ba na ñëw na fi ndax wax na ko waxati ko ne bëgg na maa ñëw ci barab boobu siyaare bi ndax lu yàgg bëgg la jàpp nañ ne daal foo xamante ne daal Serigne Touba moo ko sanc ay doomam fonk ko di ko toppatoo ay sëtam fonk di ko toppatoo taalibe yi daje fi di ko dundal jàpp nañu loolu yàgg-yàgg rek taalibe bu suñu borom nambal ndimbal daal na nga geesu barab bi dugal ci sa loxo ci biir ak ci biir. mel ni am na ay naal yu am solo itam yeneen fi naaloon yooyu tam ndax mën ko ko fàttali mbokki taalibe yi. naal yi bi nga xamante ne ñu ngi waaj ndax suñu wayjur suñu fal da ko digaloon ne ko bu nawetee làq fa liggéey noo ree nga ñëw ci nit ñi bi mu wàccee nag noonu lañ fabu nag ak suñu njaboot ñu ànd ko bokki taalib yi ngir ñëw bëgg dundal barab bi ci loolu nag lañ demoon ci Cheikh Saliou Mbacke radiyallahu taala anhu xamal ko ne ko de dañu faa bëggoon a woote bis loolu moo waral sax moom mu tànnal ñu fukki fan ci ut ji mu ne bis bi lu ngeen ci jublu ma ne ko xanaa saa bu ñu ko dajee mbokki taalibe daje fa ñu dundal bis ba màggal ko bu jàllee lu ca faccee ñu taxawal ci néegu yàlla bi nga xam ne ci la suñu Tuubaa doon yàlla taxawal itam daara ji nga xamante ne moom ci boppam moo bind ci xalimaam ne dëkk ba nga xam ne dama ko sanc ci Jolof ci jàng ci jàngale ci loolu itam ñu misal fi daara xam-xam yoo xamante ne euh, dañ ciy sàkkoo xam-xam yëpp loolu ay misal la ci barab bi béréb bi nga xam ne ci la Seexul Xaadim nekkoon itam ñu nisal ci itam defar barab bi nga xam ne ci la nekkoon defar boo xam ne dëppoo na ak jamono ba noppi sàkk ci ay dalkaay yoo xamante ne bokki taalibe ak kilifa yi saa bu ñëwee mën cee dal euh, ci loolu itam yoon woo xamante ne day jógee ci tali ba ba ñëw fii soxla nañ fi itam poste de santé daara ji itam moom li ma ko waxee rek li ñu bëgg daal mooy daara joo xamante ne xeete xam-xam yëpp dañ ko fi jàngal dañ fi xam ne daal nisër nañ ko fi ba tax na seen Cheikh mi jëwin def na ci ay plan def ci ay yéene yu baree bare yoo xamante ne lu ci nekk euh, nisar na ko mbaar ñi nga xamante ne moo nekk ci buntu jumaa ji nga ko tàmbali na ko noonu moom itam ñu bëgg bu àggee ñu di daje ñu def ko muy daara bi bu màggal gi ñëwee mbooloo mi gën daje daal bokk na ci yi nga xam ne soxla nañ ko ci bërëb bi te ñaan yàlla suñu borom ko te ñaan yàlla itam euh, bépp taalibe boo xamante ne suñu borom am am mën na ko dimbale mu ñëw dugal ci wàllu waaw waaw li ñuy tëj kàddu yi rek mooy liñ fi jàng ci alquran ak liñ fi ñaan yëpp dañ koy def addi Cheikhul Khadim radiyallahu taala ak mboolem bernde yi ñu fi def lépp rek delloo nañ ko ci addi sëñ bi radiyallahu taala di ñaan nag Cheikh Mamadou taqaar ñii nga xam ne moo fi nekk Sëriñ Touba suñu borom sàmm ko sàmm ko sàmm ko bàyyil na ko fi ba nga xam ne naal yi nga xam ne na yéene na ko liggéeyal Sëñ Tuubaa lépp moo àggale ko ci sagom te ñu ànd kook moom boo gisee ma tànn ko ne yàlla sàmm ko moom mi nekk ci bopp bi ku borom sàmmee rek ñun ñëpp ci biir càmm googu la ñuy kon nag ñu ngi ñaan yàlla suñu borom sàmm ko bàyyil na ko bi yéene yi nga xam ne am na ko ci yoon wi am ko ci lislaam bi suñu borom bàyyi ko fi ba mu ak ba mu def ko nam ko bëggee baraka lii fi kusrina wal kulli barakatan bi qadrihi al mujalli نويت كوني شاكرا بما أحب لأنه القل الحبيب والأحب على وسيلتي وجاحي جنتي محمد خير البراء يا جنتي ما لا يعد من صلاة والسلام ممن به لقد أفضل الكلام تسليم من ما عنده لا ينفد على الذي إلى الصناء أحفد hadiyati ila jumada thaniya wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa sallama ak borom ci ndigalal sëriñ Cheikh Diorel Mbacké ayadahu llah wa atala umruhu bés bii nga xam ne bi sëriñ bi wax fii ka saha bi fii ka iyaa la woon fii la it tey fii la demee woon fii la ñëwee yàlla dëppale ko 18 safar mu tapp dëppoo fukki fan ci weeru août sëriñ Cheikh Jóoreel Mbàkke ànd ak taalibe di ko màggal fii ci Mbàkke Baari bésub tey bii di fukki fan ci août 2020 tàmbali noo màggale màggal gi di sant Serigne ci alquran jot nañ cee jàng ñeen fukki kaamil ak benn xasida yi ñu jàng ci mawaahibu naafi téeméeri xasida ak ñeen fukk wa kaana xaqan alaynaa nasrul mu'miniin jàng nañ ci juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn zindi ñu jàng ci ñeenti téeméer ak fukk ak ñeent tuhfatu mutadarrihin ñu jàng ci ñetti téeméer ak fanweer ak juróom benn xasida laa taqaf jàng nañ ci juróom ñetti fukki yoon ak benn ak ñeent matlabul fawsayni jàng ko fukki yoon ak juróom yaa rabbi bil Moustapha jàng nañ ci ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent matlabu sifaa yi jàng ci ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar jaalibatul maraaxib jàng nañ ko ñeen fukki yoon hijaabu daaray jàng nañ ko juróom-benn fukki yoon mafatihul bisri ñu jàng ko juróom-ñeent fukki yoon ak juróom-benn taysirul asir ñu jàng ko fanweer ñeent jawartu laaxa bi jàng nañ ko téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar wala xadd karam naa ñu jàng ko fukk ak juróom-ñeent fatihul xafaar ñu jàng ko juróom fukk ak juróom-benn saana ilaahi bil munaajaati jàng nañ ko ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent allahu hayun samadun wa baaxi jàng nañ ko ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-benn sóoratu yaasin jàng nañ ko juróom-ñeent fukki yoon ak juróom-ñett salaatu ala jàng nañ ko fukki junneeg juróom jërëjëfe sëriñ Touba wax nañ ko fukki junneeg juróom jërëjëfe sëriñ Touba. loolu mu sàmm mu seet mu bàyyi ko ci ne ne bu yàlla sàmmalee sëñ Muntaxa rek ñun ñëpp biir càmm kon sëñ Muntaxa ak rakkam yi nga xam ne ñoom la seqal sëñ Tuuba ak taalibe yi seede ak bokk yi bu ñaanalee sëñ Muntaxa rek yàlla na ko yàlla sàmmal bàyyi na ko ba bu mel na ndog mu am ci liggéey bi nga xam ne moom la liggéey sëñ Tuuba ñu ngi ñaan yàlla itam bu dara man ci moom dara lépp lu mu sumb rek bu ko liggéey Sëñ Tuubaa yàlla ko defee na mu ko bëggee te ñu ànd ko moom ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee ñu tënk ñaar bi noonu nag dañoo xam ne Sëñ Muntaxa bu ko yàlla sàmmale rek ñun yëpp ak rakkam yëpp mbokk yëpp ñu càmm boobu ñu ngi sant bu baax nag Euh, sëñ Mountakha rek dal di ko gën a gërëm ak mbooloo mi yëpp nag euh, di fa di fàttali itam màggal gi ne li ko waral mooy li ñu ko yàgg waxee rek mooy santale sëriñ Tuubaa yàlla subhaanahu ndax moom moo wax ne gannaaw boo xamante ne jóge na ci géej jóge na ci géej bi tubaab yi bu gànnaaw asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ليتواجد ونلت سوني وجالي في الليل والنهار tëdd bi leen balu xaq leen balu xaq leen bal ana an tawajjuh kon nag sëriñ Cheikh nga wax rek doy na sax lañ cay teg rek mooy leen jox nuyoo bu mag ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa muy sëriñ Mountakha mi nga xam ne moo toog jotaay Cheikhul Khadim ak nuyoo sëriñ Abo mi nga xam ne moo toog jotaay Cheikh Mouhamadul Fadal di ko jaarale ci Cheikh Mouhamadul Bachir di ko jaarale ci mbokk sëriñ Abdou Fatah mi nga xam ne mooy jotaay sëriñ Fatah lañ fi toogee di ko gërëm ñëpp moo tax ñun Cheikh Bara rek jarutoon mu ci jël kanam waaye ni mu ko waxee rek noonu la demee sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp jataay bii nag jataay bi sëñ Tuubaa la waaye sëñ Fallu ko moom bu ko sëñ Fallu moomee nag dafa am ci loxo yi mu ko jaarale woon muy waajuram sëriñ Cheikh Thioro mu jël léppam jébbal ko Serigne Touba ne ci daara ji di moytu ba yàlla dogal mu wàcce ko mu ñëw jox ko dëkk bii ne ko nefi kon bu nuy sant wala bu nuy gërëm Cheikh Thioro la ñuy gërëm kon yàlla na ko yàlla fayal te di ko ñaaral fu mu tëdd yàlla na ko gënal fu mu jóge te dana ko gënal ndax liggéeyal ma waaju baax kon nag sëriñ Cheikh wax ji jarul guddal li nga wax rek lan wax fi nga nekk rek lan nekk noonu nag danoo jaxasoo ndax danoo bokk juddoonoo ci kër nit nag boo juddoonoo moom ci kër da ko xam xam lan la kilifa bu jub nga ndax kilifa bu jubee la ca des lépp nag moom mbiram la waaye nag li ñu ko xam mooy kii bi kon nag ñu ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa mboolem li nga sëmb rek yàlla na ko eggee ak ñi ko bokkal noonu nag li tax nu la soob mu féetee lu mu yéen duñ ko bañ moo tax lu ngeen ne danañ ca ne kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sant nañ bokk yëpp gërëm nañ yëpp ñu ngi ñaan ci barkeb mag ñi daal jataay bi yàlla bu mu doon suñu mujjub jataay loolu fi ñaan ci alxuraan ak xasida yi ñu fi jàng yàlla ko yàlla def muy li bi sob ak li bi mag ñi nag noppi nanu ba noppee ci noonu nag ba noppi jur na fi nu war a jure jaarale na fi nu war a jaarale tudde ñu ñu war a tudde ay gor lañu ñoom suñuy wajur yu jigéen di ay gor ñu judd ci ñoom doon gor gor yi nag noo koy fexe kenn du na ko fexe kon nag li ci des mooy lii rek sëriñ Cheikh nag na noonu noo bokk loo ci kër yaroondoo ci kër di ànd ak sa bàyyi di ñëw fii di dugg ci néegi ñax di dugg ci keesi sakket dema dem ba tey mu mel nii yàlla na nga def lu sa baay def nag kooko ñaan la nga bëgg mu yambare da nga naan yàlla na nga def lu sa baay defutoon yow nag def nga lu sa baay defutoon kon jërëjëf asalaamaaleykum ala tubaqi yajudu mayrim اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا بي ثوابا لا يرم يا ربي اجعل المريدين معا في حسنك الحسين والصمل اجمعا ملك جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر والمساء يقبلا اغفر لكل من إلي مالا وعن يدي لا تزحزح مالا نفعتني فارفع بي العيالا يا من حوى الأمير والأقيالا كلي بما